Mustafa santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay werante te te ka ngaayoo ci Mustafa fii nu nekk nag muy Cheikh Mustafa mu tedd mii ñu nekk nii ci pakkam damaa wax léegi sëñ Moustapha Bassirou Lo ne ko Cheikh Moustapha murit bu ne am na lu la bàyyi ci moom moom mii moom bu fekkee ab murit nga da nga yëg ak murit ci moom danga nga yëg ak dal ci moom danga nga yëg ak bëgg nit ci moom da nga yëg ak wàcc àddina gum ko wàcc boo xam ne boo amee dara ci seetlu da nga xam ne amul soxla ci dara loolu su tey jii soo ko miinut woon mu romb la di dem ñu ne la kii mooy seex Cheikh Moustapha ci kaw gi da nga ne ndax moom la ndax bari nañoo ñoo xam ne am na nu ñuy waaje moom ñooña nañuy waaje moom aggu fa te ña koy def daquñu ko ko waaye am na lu ko gënal li ko gënal mooy doon taalibeb sëñ Tuubaa di murid saadix loolu nag du lu ñuy jort ci moom nii rek du ko wax waaye lu ñu xam la loolu nag firnde ji ma ci indi mooy Cheikh Mouhamadoul taxaa mii fi nekk naa silla mi mu nekk ak moom moo ma ko nettali nee na nee na sëñ Mountakha jamono yi muy wooree njaareem néeg bi muy toog dañ ko génn tut ci fulku bi dañ ko faa tegal ab télé boo xam ne kilifa yi ñëw ci fulku bi ku ne tëll dana la gis nee na ginnaaw takkusaan fi mu toog yor kursam di wird di xool kilifa yi dugg si ci fulku bi naa may nettali nee na maa ngi toog ci wetu sëñ bi nee na bi sëñ Moustapha Mohamed ne dafa tëye kursam ne tekk ba ci yàgg mu ne kii de murid saadix la moom seexu naa ne na loolu bi ko sëñ Moustapha di wax ci salle bi maa ngi toog kon murid saadix gi nit ñi di di di xam ni yow nitug ordinaire gi nga xam ne soo jaxasoog moom bu waxee nga xam ko su ngeen taqaw bu jëfee nga xam ko bu nekkee ci xaal murid saadix gi amul werante loolu ki fi nekkal sëñ tey moo ko seeral loolu nag day cofeel goo xam ne nii képp koo xam ne sëñ euh, ñor na la lu tuuti tuuti soo ko xamee da ko bëgg dana la jaral it jóg léegi laay wax ne fii nii ñiñ fiy gis bari na jëmm juñ fi gis joo xam ne nii jëmmi Cheikh Moustapha képp moo ko yëkkati xamut kenn ci ñi fi ne waaye nag saf gu ak murit saf ci moom bëgg gum bëgg sëñ tax nit ñi di tuuru ci kawam ni ñuy tuuroo ci kawam ba sañutuñ koo bañ nit ñi nag sëñ Tuubaa rek lañ bëgg bu fekkente ne bi dafa dafa dafa def jeexiit ci yow ba jeexit di doon lu fés ba ñëpp teg ci seen bët murit bi dëgg moom bu lay dëgg dëgmal du ko tey loolu moom suñu borom defal na ko beneen bi ci topp mooy li ma wax léegi mooy dal gi xam li ñëpp xam dal lool bëgg nit kuy def te yàlla tax loolu mbiram la moo tax euh, ko képp koo xam ne yaa ngi ci ronam war ngaa gën a góorlu ci loo dal xeeb ko loo bari bari pas-pas xeeb ko loo sell xeeb ko loo sell xeeb ko lépp looy jëfit na yàlla tax ndax ginnaaw yàlla def ne ki nga àndal mu lay womat jëfam jëpp lu muy def yàlla tax bëggul sax ku ko xam ku mel noonu boo àndeek moom li lay dimbali ci moom di ko dimbali ci yow mooy nga fexe ba li ngay def sell te yàlla tax loolu daal laa ci mënoon sànni ci ay kaddu di ñaan nag suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ndax ab sag la ci ci ci yoonu murit ab sag la ci yoonu murit kenn bu dër la itam ci Euh, te euh, bu fi yàggee lislaam dana ko damoo yoon wi dana ko damoo Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa